am ben way ya ju ma bëggantel légui nak samay parents taxaw ci ne sey bi do am ñaan nga yalla sa doom bu sey mu sey ak ki gën sam papa dal mu ko gis la découragé motax sa waju di am ñu ci alaykum bolo mi alaykum xarit ak amdu jàmm ma fi dellu ci waat man seen xarit seen jigéen di maître maymuna tay nak ma ñëwoon fi indi leen leneen lu tak mooy lan suñu soxna si ne sama wet yor ay problème indi ko pour ñu toog waxtaane ko pour jàppale ko ci soxna si naa def. maa ngi fi. ba yaa ngi am jàmm. dama bëggoon nga wax ñu tuuti ci li nga xamante ni mooy problème yi nga am ba tax nga ñëw fii seet si ñu. man de li ma fi indi leen la daa am benn waay ju ma bëgganteel léegi nag samay parents taxaw ci ne sëy bi doo am. sama papa dal mu ko gisee la découragé ndax problème beutam yi mu yor ta lol ju duwaale ko da koo dab ah d'accord kon fa am problème beut motax mm-hmm. sa waajur yi ci mm-hmm. ah mais est ce que tamit xol nga sa position waajur ri ndax defe naa ni waajur bu ne ñaan nga yalla sa dom bu sey mu sey ak ki gën peut être que problème beut koku yalla moko def mais tamit est ce que yaangi ngi ndax mën na la yor ndax ñak bët tamit defé taxul nit am jom pour liggéey. mom néna na moo danoon liggéey ci ben entreprise dafa liggéey pour ñi tabax léegi nak bu mu démé yagol na fa lool. Mhm. sa bu fayé ko passion am ci lu mu ci gérer la ci seen wàkkal ak yaayam léegi nak bu mu démé bi ci bi nak affaire bi dikol ko mu di ko traité di traité hôpital hôpital mu ci dara mais mo ngi tok mais biñu xolé mi ci biir néna mom faju mbolof la da seen mam da daan faj gëwal affaire bi nak mo leen toog léegi nag moo ngi koy faj mom décourager wul mais samay parents da lo daal lañu gustu xol xool ko di découragé neen kooku duma ma sa yor mom teewul mu ngi jënde ay njaayam di jaay di placer lu mu bëggal lijjanti mu ngi koy lijjanti su ma amee samay besoin suma ko waxé daf ma koy fajal bañaluma dara te bëgg na d'accord d'accord comme mi ngi def businessam bu ndaw kooku moom baax na ndax moo gën lépp mais est-ce que sa waajur tam xamee nañ ko noonu ne comme quoi que moom mën na la yor ndax kuy maye sa doom ñaan nga yàlla may ko ku ko mën a yor est-ce que wax nga leen ni carrément mi business yi muy def débrouiller yi muy débrouiller yëpp. wax naa leen ko wax ko sama papa sama yaay ñoom ñaar ñëpp laa ko wax nee naa leen mu ngi liggéey toogul benn place bu doon daa toog benn place ñu ne waaw ay famille ñoom ñëpp. nee nañ ma bis boo duggee ci moom ñoom liñ ciy séntu bu soobee yàlla duñ ko gis ndax dinañ ko jàppale te moom it bàyyiwul boppam mu ngi liggéey liggéeyam waaw fan yii rek bu ma jógee am na ko ma jox benn jigéenam may wax ak moom kooku lu nekk wax na ko ci moom nama ma bu ñu nangoo ñu ñëw ñaan si la boobaa dinañ la toppatoo ni mu war lu war la nañ ko def ba mat sax ba ñu xam ne mën nañ laa yor mais ñëw basé wu ci affaire bëtam yi malay laaj tam est-ce que say waajur jàkkaarloo nañu ko moom est-ce que gis nañ ko muy kii di sa papa kii di sa yaay est-ce que gis nañ ko ba xam ndax mën na la yor wala mënu la yor ba fekk ko fa mu dëkk tamit ak lépp ndax bu la yoree di nga nekk à l'aise ak lépp. moom moom sama yaay gis ko mais sama papa gis na ko na daa demoon ci foofu di ko dama ñaani léegi nag sama papa bi mu ko gisee la découragé mais nag wax ko duma la may wax ko dinaa la may dañu ko rek bàyyi ba ma waxtaan nag. sama doom ak yaayam après lu ci mënti ne dinaa waxee ndax buñ koy maye fu mu dëkk lañ koy maye ndax fu mbokkam ñi bari foofu lañ ne léegi nag mu ne ko waaw mu di ko déglu bi sama papa ñëwee nag daal ne diggante bi mënul la ne naa ko ko wax su ko wax waxul moom mu wax ko ko ma ko nag man mii génn ak moom kon dinaa ko ko wax léegi nag biñ dellu ci ma wax ko mu topp ma ci topp ma ci man man ko na diggante bi yam ndax samay parents ne nañ accepté wuñ la léegi nag saasu ne dafa may woo di yërëmtalu ak yëf yi métti ko may jooy man nag mu mujj ko yërëm ma daal di accepté waat ànd ak moom depuis boobu ba léegi nag ñoo ngi ànd wax dëgg yàlla mu soxlaawee dara moo ngi ca bëggul sax ma jàmbat lu ma jàmbat moo ngi ci bu ko amee dama koy yónnee bañalu ma dara te daa am yërmande ci man dana ma sax bis ma la takkee naa ñu traité la ba sa yaram bi ka sante ci wir lu may def do ko def kon dal suma dege li nga wax moy mën na la yor mm-hmm. mais tamit est ce do xol say wajur est ce do xol say wajur nga waxtan ak ñom bu baaxa baaxa baax ta en plus bëgg na tam nga ma bëgg na nga wax ma lan ngay xaar ci ñun lan nga lan nga lan ngay sentu ci ñun man lima bëgg moy mm-hmm. ma ci dimbalé ci dimbali ba sama yaay mën a nangu moom rek moom mooy problème bi sam papa bi ñu waxee moom d'accordoon na ba wàññeeku ne dina ma ko may mais moom moo ko ci génnewaat moom la doon waxal mu génnewaat ko ci problème bi daal sama yaay la. ok bu ma déggee li ngay wax ça veut dire que kon problème bi yëpp sa yaay la ah, mbokk yi ñoo ko déggandoo comme ni ko sama rakk sama jigéen sama lépp ni mu ko waxee problème am moy mom ak wajurum bu jigen ndax wajur bu gor bi amu problème wajur bu jigen bi la muy xol nak nan lañ ko mën dimbalé ba mu and ak ki nga xam mom la bëgg ndax du benn fan ta du ñaari fan te ku ci dugg ku ne war nga ko xol kon wajuri yi tamit am nañ ci d'une part de responsabilité ñu jappalé sen dom ndax yaakar na ni dom lu mu bëgg wajuram war nako bëgg war nako ci jappalé comme nak niko olof di waxé wajur dina tok fu ca kaw di gis lu dom dul gis ndax doom it day tok ci suuf di gis lu wajur dul eh, meuna lolu, kon eh, war nañu jappalante dimbalante ndax divorce yi bari na n'importe n'importe quel problème mu ci aduna bi ci couple yi té loolu yépp war na mën ñak wajur war na am confiance ci domam mën tok di waxtaan ak mom ubil ko xolam dom ji tam même chose bu ko défé du am duñu ag ci yenn yi légui dama la bëggon laaj lan nga bëgg exactement man daal li ma bëggoon mooy ma ci jàppale ma ko ku ma ci jàppale moom dina baaxoo dëgg yàlla parce que waa ji bëgg na ma bëgg naa ko moom it am na sama yërmande waaw loolu daal laa bëgg ku ma ci jàppale dimbale ma ci ba sama yaay mën na accepté feebar yi may feebar moo tax nanguwul ma sa yëg waa ji nee na bu ma sa moom ak feebar yi may feebar di dikk di ma dikkal léeg ndax dina ko mën a gérer mag yooyu yëpp lol dal moo tax mu taxaw fu taxaw ni de do bàyyi fu mu do du sam papa mo wax nañ ko wàññeeku mais moom daal mo lànk moom ne de du mu ci dugg lu ñu wax du ko dégg. legi ñu lay laaj sa dernier mot lan la lan ngay xaar ci askan wi lepp lu nekk dal ci sa xol ta nga yaakar ko ni askan bi bu ko defé di nga ci am ndimbal da wax. mom dal len la ma bëgg rek. bu ma waxoon sànq ñi ñi ñaanal ma waaw ku ci amit loo bi comme li ma dal dal na la it nga génn ko ci sa xol parce que xol mënta encaissé yenn yi nit ki li nga bëgg danga koy génne ndax mu génn ci ceew nga mën a féex libre loolu daal laay ñaan képp comme lu metti nga ñëw wax sa waaw ku ci gis ne li ma waxit ni mën naa ne maa ngi lay déglu koo xamante ne bi xool na ni li samay parents wax loolo ni maa ngi déglu it waaw ndax ñépp ñëpp ko ñëw xalaat ku ci nekk ni nga gisee daal maa ngi lay déglu naa bëgg daal nit ñi dimbale ma ci waaw loolu daal laa bëgg ñu ngi lay jaajëfal bu baree bari soxna si ndax lii nga def ni jàmbaar rek a ko mën am problème ñëw toog jox ko askan wi pour ñu dimbali la ci ay conseil ak ci ñaan defe naa ne bari na say moroom yoo xamante ni ñi ngi dund lii te amuñu fitu taxaw wax ko dañ koy denc ba stress da leen di jàpp goitre da leen di jàpp ba ci cardiaque fii nag tey may nañ leen ku ci am problème ñëwal saa su ne heure bu ne boo ñu contacter ñu toog waxtaani say mbir ba dimbali la ci kon ñu ngi leen di bàyyi di leen jaajëfal euh, ba beneen yoon incha allah te it yaakaar ni dina problème am bii dina résoudre ñun leen di bàyyee antenne bi yéen ñëpp di di déglu daal seen xalaat ak seeni commentaire yooyu yëpp lu am solo la moom la ñu yaakaar jërëjëf